bu baax di nuyu bu baax tamit téléspectateurs yi nu koy defee saa su ne euh, waxtu yi nii chaque jour di jox ci suñu xalaat ci lu xew ci actualité bi di ñaanal Sénégal jàmm rawatina di ko ñaanal sunu kilifa diine yi di wax comme Cheikh taxa Bachir tenk you ndaxte comme dégg naa ni daañu làkk anglais moo xew et puis euh, di jéggalu bu baax ñëpp ñi nga xam ne dañuy seetaan te des wax mu am si loo xam ne dafa doon ay rëkk lu ñu koy gisee comme ay rëkk comme ni ñuy wax rek. Mm-hmm. on est responsable de ce qu'on dit mais on n'est pas responsable de ce que les gens comprennent te dégg-dégg moo jafe. Mm-hmm. yenn saa yi nag nit ki déggee ko noo xam ne xëy na du ko neex donc on présente nos excuses par anticipation. Mm-hmm. ci lépp loo xam ne lii doon na ay dëng-dëng ci lu ñuy wax te di sant yàlla it ci lépp loo xam ne nit ñi jàpp ni lu rafet la. ñu xam ne suñu borom moo ñu ko baaxee rek. loolu am na solo alors Paldi maa ngi lay nuyu. nuyu di bëggee mon ami mon frère euh, Bachir di dalal jàmm suñu gan gi nga xamante ne xam naa ni dinga ko introduire à ma suite euh, mais surtout di beral nuyoo ñi nga xamante ne moom mooy euh, téléspectateurs yi nga xamante ne saay su ne rek ñoom ñooy bàyyi seen activité ak seen lépp. car émission bi mais surtout ñi nga xamante ne ñi ngi interagir rek ñun. Euh, démb liñ nañ lim nañ fii Idi Bach. Euh, Bachir Ba am na Bachir Ba également. am na am na na Naar Fall ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo ci des am na ku nekk Paris également mooy Bachir je pense. donc di leen beral euh, nuyoo bu spécial di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam wa rahmatullah tey ngir waxtaane suñu émission ak suñu ay dem dañu am mbégte bu baax di dara ki nga xam ne mooy Omar Ndiaye Angloma nekk responsable politique bu alliance pour la république waaye aussi nekk chargé de mission à la présidence de la république monsieur Omar Ndiaye Angloma am nañ mbégte bu baax di la dara suñu émission la quotidienne waaw fallu maa ngi am mbégte contentement bu mag ci ñëw ci télévision bu mag bi nga xamante ni àdduna bépp koy bàyyi xel euh, mu nekk loo xamante ne ni investiture bu rëy la ci Sénégal ñi ñaan suñ borom yàlla def ko mu kawe kawe ba tiim télévision yi fi nekk yépp ba au niveau national tam ba tiim ay canal yépp ndax yii dafa am solo ci réew di am mbégte contentement bu mag tam pour jàkkaarloog sa chroniqueur yi nga xamante ni nii donc ci ki biir nuyoo rek da ngay xam ne borom yi xam-xam lañ donc euh, di wax ni maa ngi nuyu tam Sénégal gépp di nuyu tam palais bi ma jógee mm-hmm. di nuyu tam sama sëriñ mm-hmm. sëriñ Modou Abi Mbacke xalifa sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi mm-hmm. yàlla yàggal ko fi tam ànd ak wér ak njabootu si Abdoulahi Mbacke gi yëpp. jërëjëf alors suñu acte du jour yëgal ngeen ñoo ko yëgandoo ñu ñëpp muy li nga xam ne au niveau de la gàmbi la xewee tentative coup d'état boo xam ne jàllul alors mu mel ne Adama Barrow depuis mu falu 2007 17 ba léegi quand mu ngi doog am am ñu wax ne ba léegi donc Yaya jàmmee mi ngi am influence ci dëkk ba mais euh, Gambie Bachir dëkk la boo xam ne relation ak Sénégal lu lu lu yàgg la beneen bi mooy dafa stratégique ndax. la Casamance. Aujourd'hui, nous faisons encore une tentative de coup mais heureusement, peut-être pour le Sénégal et pour la Gambie, Dialoul, ce commentaire par rapport à ça. waaw vous nous, vous nous dites communiqué bi communiqué bi gouvernement Gambie moo ko def. Mm-hmm. kon bu jàlloon xëy le gouvernement du ko def.

tellement Gambie daf ñu c'est ci côté bobu noonu parce que ñun zone basse lañu gëna gën té zone zone nit ñi dañuy dem di de part et d'autre man mi di wax yow Nous mag ci donc ci ñun rek lañ lañ suñu itam lu nga wax am solo la Gambie aujourd'hui est un élément stratégique dans la résolution de la crise en té tay ji ni ku tuddu gambi, tuddu trafic de chanvre indien ku tuddu gambi, tuddu trafic de bois. Mhm. té ñan ñokay def ay ño xamné dañu dañoo yor ay way fu poulet yenu sen gannaay buñ ko bëggé jaarale fuñ koy jaarale. Mhm. ci gambi lañ koy jaarale. Mhm. déggoon nañ fi taay ay militaire yuñ fi jàppoon ak yu mel nonu donc lool yëpp motax tax daal dañ leen di ñaanal jamm di si ñom di leen ko yéene yi tamit. té ñu dëkk si jamm té lool moy suñu jamm ñun té gambi fum mu toll nii dafa bok ci senegal d'accord fam kon commentaire par rapport à ça. waaw comme ni nga ko waxee rek ak ni ko Gambie mom ak senegal c'est est le même peuple deux territoires té colonisation mom moo fa jaar hmm. man mi mën na wax ni sama sama sama ñenti mam yépp am nañ fa ay wal hmm. am na ño xamante ñuma ñu ma jege ci wal yépp ño xamante ñi ngi fofu dam fay dem euh damay ak ñom toujours et toujours. donc euh, lu leen laal rek dafay laal Sénégal et comme comme niñ koy waxee xam nga Gambie c'est comme l'arrière-pays du Saloum et, de la Casamance en règle générale donc loolu moo permet effectivement ñi nga xamante trafic de bois beeg yooyu ak sax base arrière MFDC. Euh, dafa compliqué woon ci jamono ji nga xamante régime bi fa nekkoon xawloon juboo ak régime u Sénégal dafa compliqué woon pour contrecarrer loolu yëpp. Euh, yàlla defal ñu ci taw depuis euh, les élections de 2017 avec l'avènement de de de Barro. Mm-hmm. nga xamante ne dafa am d'excellentes relation avec notre président de la République. Euh, mu stabiliser woon te Sénégal bokkoon sax nag ci force yi nga xamante ne mhm. ñoom ñoo yoroon kaaraange euh, président bi mhm. effectivement bëriwul nag lu lu lu lu fuité dans la presse par rapport ak affaire bi mhm. ñu mën ci am ay témoignages si ce n'est que être que am na ay mouvement de troupe dans la capitale ak yooyu noonu euh, il est heureux comme a dit Bachir su su fekkente ne gouvernement moo def communiqué rek mooy l'essentiel est sauf amul dégguñ ci ay dommages yooyu noonu donc am na ay soldats lu mat ñeent je pense yu jàpp ak bon. am na ñetti ñetti ya, ya, ñetti ya. complice tam yu ñuy wër. waaw waaw eh, maintenant maintenant xam nga nag affaire ah, Gambie comme ni nga ko waxee tudd Yaay Jàmme eh, Yaay Jàmme moom dafay nekk dafay des rek ci subconscient wu Adama Barrow et peut-être même bu Macky hmm. donc et eh, on se rappelle que avec Yaay Jàmme daan nañ ko jiiñ des fois tax dina toog. wóoluwul ñii rek mu jiiñ leen coup d'état songu leen xam nga mën leen mettre au frigo wala loolu noonu mm-hmm. lan la ci on ne sait pas encore mais li wér te wóor mooy mm-hmm. Gambie dafa am une importance capitale pour le Sénégal et pour les Sénégalais mm-hmm. donc jàmmi Gambie dafay bokk ci jàmmi Sénégal ñii ñaan yàlla rek mu def ci jàmm pouvoir démocratique bi fa nekk jubóog askan wi ba nga xamante ne soit mu jeexal wala kóolute bi su jeexee ñu mën a am euh, ancré seen démocratie quoi dañu ci yu mel nii di fàttali nag ne Euh, xam nga ci fi ñu nekk zone bi ñu nekk on peut parler de la Gambie mais la xew ne xew Mali. donc cercle boobu mm-hmm. noonu. Mm-hmm. su xawee cof Gambie tamit. dafay gën a. Mm-hmm. instabilité dans la sous-région dafay gën a doy waar. donc ñu gën a vigilant par rapport à cela. foofu nga jàll sax xanaa bëggoon a euh, laajee euh, Omar Ndiaye gis nañ Gambie quand même rôle bi si président joué ba Adama Barrow mën a mën a installé wu aujourd'hui ni ko Paul di waxee réew yi ñu war daanaka ay coup d'état parce que boo xoolee daanaka yëpp la am yenn yi bu fa am tam. ay tentative ma nga fay am tay ñu ngi koy dégg Gambie alors Sénégal ñi ngi jëm si ay ay peut-être ay élection yo xamné ne fi mu ne euh, boo dégloo yi da ngay da ngay tiit da ngay japp né ci tension lañ jëm ak coup d'état yooyu yëpp euh, ñuy tudd ci région bi ak li xew Gambie tay ndax loolu du du mënul nekk loo xam ne risque la si yéen ñi nga xam ne da ngeen a téye état war a gérer armée war a gérer sécurité ak euh, la sécurité des des Sénégalais. donc Fallou xam nga coup d'état moom kenn rafetlu ko. Euh, donc du du yëf yu civilisé sax quoi parce que euh, ci démocratie da ngay da ngay laaj euh, baatu askan wi ñu jox la ko nga gouverner mais foqar ñi nguur moom dafa dafa rafetul sax loolu international bépp dañ cee war a taxaw que ni foqar ñi nguur doo fi gouverner sax far parce que yooyu day yàq réew parce que xam nga rey ay bakkan perturbé benn ni jël nguur goo xam ne kenn joxul la ko da nga koo jël ci doole donc loolu neexul di wax ni li xew Mali xew Gambie xew yeneen pays ñun Euh, sant nañ yàlla parce que bokkuñu ay ay critères bokkuñu ay nit loolu dafa am solo ci Sénégal parce que dafa am kilifa gu mag goo xamante ni daf ko mos a wax Senghor ni ko mooy président Côte d'Ivoire ni ko tabax naa Côte d'Ivoire ba mu baax mu ni ko d'accord ba loolu baax na mais tabaxoo ay nit. Mm-hmm. parce que boo xoolee Sénégal dañu tabax ay ay ay nit ñoo xamante ni xam nañ lan mooy démocratie xam nañ lan mooy réew. par exemple anjité ku mel ni Djiboka ay ñoom Moustapha mm-hmm. Niasse ay ñoom Mamadou Lamine ay homme d'état yoo xam ni bon boo xoolee situation bi lu mu ñàng-ñàng duñu du ñu taar réew mi boo xoolee Ablaye Wade bi mu opposé Senghor donc ba ci ab Abdou Diouf danaan wax du jaar mukk ci ay néew pour dempale donc boo xoolee bi muy perte réew mi. Euh, bi mu bi ñu ko gañee mu xam ne gañee nañ ko dafa woo président Macky Sall félicité ko. bi mu gañee ab Diouf dafa ab Diouf da ko woo félicité ko. donc loolu moom euh, ñu koy rafetlu ci Sénégal te gën ko war a gën a sàmm. Euh, ba yooyu bañ di am. mooy ay coup d'état moom mën gëw ma ko gëw ma ko Sénégal ba pare am nañ ay kilifa ay kilifa yi diine yoo xam ne ku ci ne fàcc ba nga ne. am na ñoo xam bu ñu waxee yow nga déglu leen. donc loolu mooy suñu sens ci yeneen yeneen yeneen yeneen dëkk yi war di wax ni tam Gambie euh, laal parce que mon frère nous wax léegi mbiri ngaragam wax ko ndax dama bari ay xarit. dama fa bari ay xarit bari fa ay am donc di wax ni loolu gënul euh, di bon bon demam. ngi dégg fan yi ñu ni def ni international pour ñu bon un président de la république sortant. Euh, nekkoon koo xamante ni élément la boo xam ni. donc àdduna bépp kon bàyyi xel. boo muccee ci moom da koy bàyyi fu mu tëdd mu toog. Mhm. da nga koy bàyyi parce que loolu mooy stabilité mooy stabilité réew mi boo waxee loolu. Mhm. ñu xëy suba ñu ni coup d'état doon na fa jéem am. Mhm. donc loolu gënul ci pays ba. yow mi jiite réew mi. dafay am yenn yoo xam ni. maanaam doo ko jéem a laal. muy indi ay problème parce que euh, yaayaa loo ko mën a wax yàgg na Gambie loo ko mën a wax am na lu mu defal Gambien yi bi mu demee tam am na ñu commencé waat xalaat ni est-ce que sax gënu fi woon donc moo tax ci kaw euh, diplomatie dafay am loo xam ne kenn du ko laal boo xoolee euh, li ma lay wax ci démocratie Sénégal bi ñu ko fi Mauritanie defee Abdou Diouf xam li nekk ginnaaw Mauritanie dafa dafa dafa wàcc ay barab parce que wax na sax ni ay bu ma géeroon mooy bu géeroon mooy réew mi yàqu donc yooyu moom laa leen mooy diplomatie waaw mooy diplomatie bi Sénégal bi mhm. Sénégal am mhm. tey boo demee pays internationale yëpp mu mhm. ñu ñu wër ci lépp nag du tàkk Sénégal mais ci lépp rek ci lépp ci football bi ci journaliste bi ci lépp donc sénégalais yi am na côté boo xam ni euh, seen diplomatie tey comme plateau bi ñu ne tey boo toogoon di wax da ngay mel ni ku toog canal parce que da nga xam ay borom xam-xam ñooy wax loolu dafa baax ci réew ñooñu duñ taal réew mi. Mm-hmm. parce que am na fa bu fa tollee dañuy mm-hmm. dañuy bàyyi chance boobu lañ am. di wax ni tam daal di continuer rek di wax ni. Mm-hmm. ay coup de temps moom doxul. mooy pays yi ñu wër. nañ bàyyi yooyu Mali fan yee ñoo ngi ko embargo kenn joxu leen dund. mais population ba ñooy sonn. yow yow mi jël nguur gi doo sonn xëy na am na looy lekk ak looy naan. te euh, mbir na ku koy foqar ñi. am na loo ci yaakaar. donc mënuñ laa jox ab armée Euh, population bi am ci yaakaar ci yow pour nga yor seen sécurité nga xëy suba fuqal ñu góor ga ci ñoom mais dañuy noppi rek pour ragal la mais pour bëgguñ sax nga gouverné leen mais bëri na ay tension ay coup d'état yoo xam ne ko indi ay tension politique la te maa ngi koy wax léegi ñun ñu ngi jëm si ay élection peut-être fii ak euh, fukki weer ñaar fukki weer euh, mais booy déglu politiciens yi ñuy wax dafay mel ni quand même si tension la ñu jëm xam nga fii moom ay politiciens amatu fii lu bari dama la ko wax c'est-à-dire réew day jékki-jékki am foo xam ni day am phénomène parce que par exemple euh, tey mm. euh, boo xoolee li ma la wax léegi ci Mamadou Dia ci Valdiodio Ndiaye ci ay Senghor c'est-à-dire diplomate yooyu mm. ba amatuñ léegi da ngay xëy rek yor sab saak comme Angloma nekk politicien donc doo xam doo tënk ci benn bànqaas goo xam ni mm. li ngay wax mën naa taar réew mi doo tënk ci benn bànqaas goo xam ni